muy Seydina Limaamul Mahdiyu tey ba mu wootee en 1883 ba mu ne ajibu daayala aya mashar al insi wal jinni inni rasulullah ilaykum maanaam mooy lii ngay xaar tey ajibu daayala ya mashar al insi wal jinni inni rasulullah ilaykum ajibu daayala kaay leen wuy yàlla ya ma sharal insi wal jinni yen nit ñi iya, ak jinni inni naka man rasulullah la yalla ma yoni ci sen bir ba mu joggé ci lool rek dafa dugg jak ni len zikr len lan lañ wax la ilaha la ilaha sayidina rasulullah la ilaha illa nga zikr zikr ba sa xol fess fess del ak ay leer ngay sogu julli avant d'être artiste je suis euh, je suis un musulman hein? donc euh, ci loolu la jëkkee hein ah. zikr si jàng yi ni si daan si loolu la jëkk film mu bu ma la défalé am ziya fi rek da nga naan no ki du ma joon loolu moo tax des am surprise euh, kenn di ma interview may wax ay alcorane ay ay alcorane wala di ki affaire yi mu naan mais non ñom ñom ñu japp rek ni artiste bi dal benen benen côté la quoi euh, moy kuy tux cigarette moy kuy mandi moy kuy drogue moy ko xam day wax wax yu vulgaire non avant d'être artiste moi je suis musulman je suis un layen sama papa Seydina Issa la tudd mu ngi tudd Seydina Mandione ki a été le deuxième xalif général des Layènes bu ma amee 18 ans la ma yóbbu jël ma wér may wér di salaatul faatihi ba tey jii ah ba pare dama doon jàng ay zikr tey mën naa fanaane tànt suba gi minuit minuit ba cinq heures du matin te lu ma wax du ma si delluwaatu bu la neexee si alxuraan bu ma neex si limaamul maadu bu la neexee si Serigne Touba bu la neexee si Cheikh na Ahmed Tijane fu mu si nekk dugg naa ci xuus naa ci te xam naa la ñu ca wax. donc diine moo jiitu si man bu ma demee ba nekk artiste. aar bi dafa am leneen lu ci complété waat mais diine ji moom moo jiitu te diine bu nekkee sa base rek jeex na donc je suis laayeen limaamul Mahdi laa gëm hmm? maa ngi évoluer ci milieu laayeen ba tey jii may wax ak yow damay def ay zik léeg boo booy dañ may invité naan man non dañu bëgg nga defal ñu ay ay waxtaan mais man leen tey bu ma ko fi defee xam ma lan la ñuy waxaat moo kii théâtre kat bi moo fi defee xala théâtre c'est un métier <laughs> basalaay rasulullaay laay laay mu baax may laa gaynde njëloor dabaa nga yoof nañ seeti njool may laa ñaani paas seetil ma njoon mooy jaale gaay bu ñu jëlee néew nag di ko yóbbu armeel ya laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah moo limaamu foo dégg wax bi mu ne malaaka yi jël ruu yi di ko yóbbul suñu boroom ñu ne lii la ñuy wax te heure bu ñu ko waxee ba rob ko ñu leen ëpp fuuf si ay malaaka dañuy ñëw ni cas nii bu yóbbu ko fan lañ koy yóbbu salle d'attente bu mu toog di xaar bés penc loolu motax bo boo suñu armel bo gassé do fa fekk picc do fa fekk yàq sax do ko fa fekk ñu ni waaw ñooñu fu ñu jëm ñu ne ña nga salle d'attente bi di xaaré Macky Sall bu la invité woon tay avant mu lay recevoir dafa am salle bu tedd bo xam ay climatiseur ak affaire yi fa lañ lay def en attendant donc lool moy diine yi Seydina Limamou pour te dire que avant d'être artiste je suis musulman avant d'être artiste je suis laayeen